maa ngi Mohamed Mouhamadou Bachir Wilane nekk président promotion sortante médecine bu université Cheikh job de Dakar donc ñu ngi ñëwoon tey Tivaouane ngir yàlla ak amal fi campagne médicale consultation ak don de médicaments. donc ñu jagleel ko xalé yi nek ci daara yi ñu choisi site bi muy zawiya bi ngir yalla ak defal xalé yi consultation ñom ñu nek ci daara Serigne Mbaye donc muy concerné daara yi nekk Tivaouane ñëpp parce que dafay dugg si cadre projet bi nga xam ne promotion sortante machine dañ ko am mu nekk projet social ak projet de campagne médicale. donc cible bi moo nekk xale yi nekk si daara yi jotoon nañ ko def Touba donc dernier étape bi moo nekkoon Tivaouane donc yàlla def nañ ñëw nañ fi tey pour l'instant consulté nañ lu ëpp.

waaw alors ñu défé ko fi nga xamné fa la ko ñu di bëggee. dëgg la ndax ban réaction nga gis ci nit ñi. waaw euh, gis na ni vraiment nit ñi accueillir nañ euh, initiative bi té coopérer nañ ci tamit donc ñom adhéré nañ ci bu baax parce que bi ñu ñëwee di waxtaan ak sëriñ bi pour projet bi ñu am vraiment daf ko rafetlu ñaanal ñu encourager ñu ci donc nawet bi ñu jëm na période la boo xam ne sibiru dafay bëri moo tax boo ne sax ben don de moustiquaire aussi yenn feebar yi nga xam ne aussi fréquent na si milieu yi nga xam dafa tëju comme daara yi donc ñëw parce que nekkul consultation kese consultation la en même temps sensibilisation te gis nañ ni vraiment waa daara ji recueillir nañ ko te gëm nañ aussi suñ fi jugee dina am suivi donc suivi suñu côté suivi si niveau ñi nga xam ne ñoo nekk si daara ji am nañ si yaakaar bu baax incha allah. ah njool bi moom mënu ko bañ ndaxte ñetti njool yi de laa xam njool Màkka njool Faama moom mooy ñetteel bi njool Fuuta. <laughs> voilà ndax Alaaji Malick moo ne woon yonent bi mën na maa gën a gudd tànk de waaye fu mu teggi tànk ma teg fa te yonent bi tegul woon tànkam lu dul ci charia ak sunna yow tamit ñu gis la nga teg sa tànk si loolu di ñu si teete voilà kon nag euh, njaboot gaa ngi nii ay euh, ndongo daara lañ ne la nekk si université Cheikh Anta Diop ay médecin nga ñaanal leen ndax euh, Alaaji malik ne woon na bu ma doon am métier de médecin laay doon voilà kon loolu di sakk si ñun kon euh, comme que jotaay bi ye mënul yàgg ñu bàyyeek euh, sunu professeur sëñ Abdou Ba mu sànni si kàddu jërëjëf euh, xam naa ne jot amul ca bari ngay ay itte aussi waaye ñii nag mooy étudiant prosmet 2019 c'est-à-dire que étudiants yi nga xam ne ñoo agsi nañ si jamono wala génn ci faculté de médecine dañ maa defal nag teraanga ju rëy ndax dañoo tuddee seen bopp euh, promotion Serigne Abdouba. Ba. alhamdulilah man maay turandoo promotion. donc euh, léegi euh, ñuy waxtaan ci lu bari di jokkoo ci lu bari bi ñu waxee ne dañoo bëgg a ñëw. fii nag ah leen fii nag fii sama sama kër la sama kër la donc euh, ñu jàkkoog euh, sëñ Moustapha mu ndaw ah, ba mu organise ko ba mu agsi fii waaw waaye fii nag comme ni mu wax léegi yaay recteur bi yaay yaay yaay recteur bi macha allah yàlla yàlla na yàlla na la yàlla <laughs> may wér yàlla na yàlla bàyyi ci kanam parce que mu tuddi mu li mu wax yaay recteur bi mais parce que aussi ah. yaay gardien orthodoxe bi yaa tegu ci yoon bi ca euh, jàddu ca teg ñëpp ci yoon bi ah, euh, vraiment nag ñu kontaan ci ñëw bi ñëw fii ñoom nag ay ndaw lañu dañoo nekk ci buntu àdduna ah ñu bëgg nag nga ñaanal leen bu baax a baax a baax ci médecine bi euh, man lu ma ci am ñu am lu ko ëpp ah, lu ko ëpp et puis yàlla ñaanal leen aussi ñi am euh, amul borom kër am boroom kër ñi amul soxna am soxna et puis daal vraiment que seen dund seen aajo faju seen aajo faju la ñu la ñu def fii nag tey lu lu rëy la ah, Bachir mi Wilane moo mooy seen njiit moo ànd ak euh, Christine ak ñi ci des ñëpp mhm. ku nekk jàpp ci ci li nga man euh, depuis ce matin gis nañu nee nañu 503 alhamdulilah patients gis nañ ko 503 patients am na ñu ñu yox garab am na ñoo xam ne ñu aussi dañu leen a référé ci hôpital bi. pour un suivi. waaw léegi seetlu nañu wax naa leen aussi bala ñoo dem. Mhm. ñu jéem a dajale taalibe yi fi nekk. Mhm. pour que ñu waxtaan tuuti ci cet gi. te wér. nga dool leen ñaan quoi. xaj na li nga bëggoon a wax ëpp na lool. waaye nag émotion bi ndax su ma la gisee parce que kii sama euh, sama lépp la. dama lépp la moo tax ndax góor gi moo ñu boole. waaw mu ngi noonu am taxawaay nag waaw mu ngi noonu mu am taxawaay bu rëy ci kër gi mu am taxawaay bu rëy a rëy rëy yàlla ginnaaw wala am na keneen ku bëgg a sànni benn kàddu ah ñu jël weer yàlla baax na yàlla ñu ci yàlla yóbboo jàmm mooy rek ginnaaw bu ñu nuyoo teg ko ci nuyoom nag ndax fii fii moom këram la comme ni mu ko waxee noonu lañ ko gisee woon ak góor gi digganteem ak góor gi fa tabaarakallaahu benn benn la benn la ba tey ndax euh, tabaarakala góor gi dafa dem rek waaye benn la ba tey ndax noonu la toppatoo waa kër gi noonu la bàyyee xel waa kër gi di di leen sant yeen ñëpp nag waaye sant leen ci njëkk cant cantu yàlla jëmee ko ci yéen ndax yàlla dafay wax ni ahabul xalqi ilallahi anfaahum li yi ki ma gënal yàlla ki ma gënal man yàlla ci sama jaam yi ma bind mooy ki ëpp njëriñ ci jaam yi te ki ëpp njëriñ ci jaam yi mooy ki sàmmal nit ki wéram ndax nit bu wérul du jaamu yàlla du liggéey du def dara comme que yéen a ngi taxaw ci boobu position nag di ko jàng te kenn ku ci nekk xam na situation bi nekk ci jàng affaire médecine ak faj ak lu demee noonu diir beeg ñi ngay war a recevoir ëllëg yëpp mu ngi ci waaye ngeen muñ jël boobu métier te métier boobu moo gënal yàlla ci kaw suuf ci métier yi li mu wax léegi ci seen maam Cheikh Al Hadji dafa agsi woon di firi. tafsir booba mag ñi la wéer mag ñi ngi yor kenn ku nekk moom bu daan tafsir kii day yor histoire kii yor wàllu sharia tafsir yi ni muy tase noonu la ko daan indee du indi rek benn façon tafsir bu waxee ba pare nag ba bu mu agsee ci ci man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa ka annama qatala annaasa jamia waaye wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa jamia defe naa mu ngi ci suratul maida na nga leen wax aaya bi si kii bi numéro aaya bi ñu seetal ko seen bopp ci wàllu kii dana baax trop maa ngi fekk benn boo xam ne bi deux cent et quelques yoo xam ne ci wàllu médecine ci wàllu histoire ci wàllu ñoo ko defa tafsir indi naa ko mu ngi ci mu ngi ci bibliothèque foofu moom dana ci ubbi la yaatu seen membre xool ba jàng ba agsi ci aaya bi si Abdou mu ne tekk pendant trente minutes waxatu mag ñi ni ko góor gi yow de la ñuy déglu mu ne ah man kat damaa gis métier mu gën sama métier mi ñu ne ko ban la mu ne faj nit comme que faj nit def ko bëgg bàyyi dafi médecine kon mag ñi ni ko ah yaa ngi defar xol yi yaa ngi defar ruu yi yaa ngi defar bakkan yi yaa ngi defar xel yi loolu it ci wàllu médecine la mu ne kon xanaa maarik sukkandiku ci foofu xaar waaye muñ muñ munta muñ mu dugg ci néegam ci ngoon gi jël ni tey bu ko yàlla defoon médecine nan lay accueil yi nan lay defee accueil yi <laughs> mu gis ni malade bi nga xam ni mu ngi ñëw ci yow boo fexee kafak moom rek moom ba ba kiyam bu doon cinquante yi dana dem nga mën a faj cinquante yi milliard mën na koo delloosi mu ne ma milliard bi ngay topp ci ginnaawam di ci daw boo ko delloosi boo ko amoon ndax dina ko mën a delloosi ma ni ko déedéet mu ne te ci dund kii la ko jox la wàññeeku wàññeekuwul ci alal ji wàññeekuwul ci matériel mu nekkoon kon kooku li mu la wax dëgg la ci moom ba ngeen fi ñëwee léegi moom seconde la waxoon ñaata heure ngeen fi def kon jàpp leen ni rek yàlla dana leen fayal boppam euh, ñëw ci ñëw ci seen maam Abdou nag bokkul ak tàllal loxo seen maam Abdou bokkul ak tàllal loxo yàlla <coughs> bokkul du benn. مام عبد الله بوكو تالال لخو دا نان امانه ما ام امانه دوما ام وا يالا بوكو تالال لخو نيل دانا ام يالا كين ام سي مام نياري خيل موتاخ مام واخني ومن تعابيدي يجب بما رام يالا بوكو نياني رك نيل امنا بول ووت بروغرام نا كاج لا كاج لا سي جوتك ديريت نيل دانا ام واذا سالك عبادي اني قريب اجيبه daa daani kon tabaarakallahu bu leen jàpp ni seen toogaay fi perte la incha allah yàlla dana leen ci defal ndam yàlla na ko yàlla def te jàppale leen nag te am na domaine yoo xam ne boo ko liiree ci journal il faut que lay pousser ci nga jàmm man li ma gisoon ci pays yi dañ daan may xale yi comme bisu àllarba wala bis yi xam dañ ko jàng ñu génne seen ñoom itam di bind prof yi corriger ko ñu yóbbu ko ci paas boobu muy benn muy àllarba wala ñu def ñu di ko defee noonu mais yooyu yëpp amatul amatul amatul amatul waaw mu ngoog daal nga wax seen seen maam te seen maam Abdou daan wax ni xam nga moom bu daan xëy ba toog di waxtaan danaan lan mooy information tey boo boo seetaanu journal déglu woo ko doo bokk danaan la toogal yow comme que déglu boo waxee da nga naan dégg naa te dégg naa du fi am njëriñ moo tax ñu daawul déglu information yëpp du ñu yàpp jataayam bu ko defee nag ay xale ngeen xam-xam bi ubbeeku na lépp a ngi fi waaye pom yi moo ëpp pom yi moo ëpp waaw man nit du jàng ba am nit du wut ba am li mu jàpp di ca teral boppam di ma tardeloo loolu kenn jaru ko sëriñ bi jaru ko kenn jaru ko moo tax jàng leen gëstu leen def info moom daal man ngeen a liggéeyal seen bopp daal yéen ngi ci yoon yéen ngi ci at yi yéen a ngi ci moyen bu ko defee nag yal na leen yàlla jàppale yal leen yàlla dolli sutura def leen mag euh, ngo seen maam Serigne Touba radiyallahu taala anhu dama koy wax toujours man dama koy liiral lu bari waaw du ma ni rek ab tijaan la wala sama maam ay diw déedéet alxam dañuy wax ni xam-xam wërsëgu nit la xikma bàllatul mumin foo ko fekk rek jëlal waaw Tahiru Diop Ibrahima Diop yow Mouhamad Joxaan yow sa tur yi na de ah nga ni Mouhamad yow na nga tudd jëlul ah yàlla na leen yàlla jàppale Pape heure baa ngi naaw de ah min cheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim iyyaka na'budu wa iyyaka mbaa Diop yi nii danañ añ bu baax ah. damay ñaan di ko jéem a tasaare.